maa ngi taxaw fii ci Mbour ci plage bi ak tiis ak naqar gu mag gu amul fu ñu ko mën a xayma li xew fii musiba la te musiba mënu ko weesu ndax bu ñu waxee ne am na gaal gu am lu mat juróom-ñett fukki nit ñu ñu génnee ci ñeent kese ñoo xamante ne ñu ngi dund boobu ba tey ñu ropp ci lu mat fanweer ak juróom-ñaar ñeneen gisuñu ko jéeye ci réew musiba mënul weesu lool ñii def lii nag di jël ndaw ñi ci seen naqar ak seen ñàkk liggéey gi ñu nekke ñenn ñi sax am fi liggéey waaye ñu di leen gëmloo ne feneen moo gën ba tax ñuy jël alal guñ ciy dàq rek tax ñu jël ndaw ñooñ di leen yóbbu ci na di leen di leen ci géej gi pour yi bu leen Espagne wala feneen ñooñu gouvernement bi dina leen dina ko jëflanteeg ñoom ba mu mat sëkk te dinañ taral daan yi danañ leen rëbb ba fépp fu ñu mënte nag ñu fekk leen fa ndax lii mënta weñ kon li xew metti metti na ci njaboot gi ñàkk seeni njaboot waaye met seeni doom waaye na tamit ci askanu Sénégal yépp ndax lii di xew ndaw ñi di mbabb ñoom ñëpp di dem bitim réew réew yooyu ñu dem il faut ñu xam ne que ay malaaka tabaxuñ ko ay jinne tabaxuñ ko ay doomu aadama yi nekkoon ci jafe-jafe gëm na seen réew dafa waroon soppeeku ñu toog di ko liggéey rek ko liggéey ba mu mel noonu ba ñoom ñu bëgg faa dem ci condition yi ñu fa bëgg a demee bi yàggul dara boole na ar gendarmerie ak police armée sax boole nañ ko ci lu ëpp weer ñu ngi doon daqante di patrouiller ci plage ba tere nañu lu mat juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo xamante ne dañu doon waaj a dem ñu téye leen kon gannaaw solution yooyu nga ñuy ut pour tere nit ñuy dem ñu ngi tamit uti pexe pour jox ndaw ñi liggéey waaye dëgg gi tamit mooy du ñuy dem ñëpp amul liggéey am na ñoo xamante ne am na ci luñ jàpp waaye xëy na dañoo bëgg lu gën a bari ba tax ñuy jël risque yi ñu bëggoon leen wax ne àdduna dara xëyul sotti te njaboot yi nga xamante ne ñooy teg pression seeni doom nañu xam ne que pression sa njaboot lu baax la ci waajur bu koy teg ci njabootam waaye na doon pression positive maanaam di ko ñaax mu gën a góorgóorlu mu gën a am jom waaye jom ju ko toogloo fii muy liggéey li ko yàlla wërsëkale mu tey ci loolu pas teg ko pression ba moom dootul xejati Sénégal ba dem wala dee wala des fii gën ku nekk ñaari alternative yi mu am loolu mënti doon pexe kon na sénégalais yépp xam ne lii xew fii solution yi gouvernement bi ñëw door a egsi di mettre en place mënul xëy rek ñëpp amandoo liggéey ci ndànk-ndànk la ñuy saafara problème yi ñu fi fekk ba ku ne xam ne Sénégal ñu ngi koy liggéey te ku ne jàpp xam war a jàpp na tamit sa loxo danga ko ci war a dugal kon dina am idir ndax lépp xëyul sotti te ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi gis ay nit ñuy waajal a dem. buñ ko yeggee nañu xam ne seen responsabilité la parce que dafa mel ne rek nga gis nit muy dem di xaru ji doo ko seetaan da ngay def lépp pour mu bañ xaru wala pour mu bañu sotti nañ ko jàppaleen ko balaa muy dee ngay dégg jàppaleen ko balaa muy dee googu nag jàppaleen ko balaa muy jël géej ci dee mën ko ko fekk ci la bokk moo tax fan yii di ñëw ci lu gën a gaaw sax gouvernement bi dina teg numéro vert maanaam fenn foo xamante ne ku fa nekk mën na faa woote te bu ko jaree sax dinañ ci teg ay neexal pour ñi nga xamante ne ñooy yoole ñi bëgg a dem dinañ sowee bàkkan waaye dinañ am tamit ni ñu leen neexalee ndax ñu mën a xam ne lii ñu nekkee di ko xeex gouvernement bi kese doyu ci ndax gouvernement bi mënul nekk ci plage bu ne waaye ku ne ci plage yor fa sa téléphone gis ay nit ñu dem xamal ne jéey gu toll nii war na ci mën a am kon sa responsabilité en tant que jullit mooy ku gëm nga war a mën a tere nit ñi jël risque bu toll nii lu xew nii ñu ne 80 personnes. ñoo ci nekkoon te quatre rek ñoo ci respect rescapé kon daanaka lu mat juróom juróom-ñaar fukk ak lu teg ñàkk na fi seen bakkan te lii bu muy xew ba tey 2007 ba tey ba 2024 bii ñu nekk nii léegi mu ëpp ñaar fukki at ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool te ay ndaw la ñu ñoom ñoo war a tabax réew mi kon responsabilité collective bi ak solidarité bi entre ci biir Sénégalais yi na ko ñëpp na ku ne jàpp na responsabilité boobu nu mu gàlloo ci loosu gouvernement bi noonu la galoo si sa loos te nga joué sa partition loolu mooy tax en attendant que solution yi ñuy mettre en œuvre maanaam pexe yu ñuy nas wane résultat yi ñuy xaar ku ci ne nekk un par rapport ak migration yi di xew kon lii moo nekkoon li nga xamante ne bëgg naa ko fi euh, jukki ci ay kaddu te delluwaat masawu njaboot gi yëpp. ñu ñàkk seen doom masaw askanu Sénégal waaye di wax ndaw ñi nañu gën a takk seen ndigg boole koog muñ te ñu booloo liggéey réew mii ñu xam ne bu yàggul bu yàgg balaa muy yàgg incha allah dañu commencé gis résultat yi nga xamante ne ñoom lañ teg ñoom waaye réew mii kenn du jóge bitim réew di ñu ko tabaxal. ni waa bitim réew toogee ba tabaxal tabax seen réew bu mu mel ni suñu ni tax suñu doom yi di jël risque dee pour dem fa noonu la ñu war a toogee fii gëm ne réew mi fii lay changé bu amee lu ci doxul ñun ñëpp ko war a jubbanti ndax ku ne am nga fi responsabilité te fii la ñu yàlla tanam salaamaaleykum wa rahmatullah